salaam salaam ngir ngeen mën ñu dooleel ci biir univers info tv daw leen gaaw ngeen abonné ci sunu page bul fàtte benn yoon bës li nga xam ni moo di cloche de bi ngir nga mën a jot information yi à réel tey nag information information mbégte laa koy wax ndaxte ndambu Sénégal la waaye fierté Sénégal la ndax ku ne xam na Viviane Ndour euh, yaayi Philippe Ndour ak Zeyna ñu gën ko xam ci clip yu rafet yi waaye euh, son yu neex yi nga xam ni moom lay procurer askanu Sénégalais yépp Euh, mu nekk loo xam ne rafetlu nañ ko bu baax a baax a baax a baax ndax boo xoolee lépp luy beauté dafay feeñ ci li nga xam ne moo di kilibu bu Viviane Ndour waaye lépp loo xam ne tamit day neexal musique da nga ko ci gis à 100 pour donc nag ci yooyu lañuy ñu sukkandikoo moom Viviane nag daat koy sargal suñ ko waxee sargal maanaam dañ ko euh, attesté benn trophée bu mag a mag a mag fële ca Rwanda euh, par Trace Award moom Viviane nag ñi ngi gis contenté ci kanamam waaye ñi gis mbégte ndax boo xoolee sax bi ñu koy jox trophée bi mi ngi jooy jooyu métti loolu lépp nag fierté Sénégal la ndax tey jii nii ki nga xam ni moo di Viviane Ndour yóbbu na euh, sunu drapeau fu nekk waaye sigil nañu ndax trophée bi mu am du moom rekk moom la waaye je dis que trophée bi pour Sénégal gi yépp la donc Univers Info TV mi ngi koy félicité bu baax a baax a baax di ko ñaanal yeneen trophée euh, daaj ci topp waaye nag comme ni ma koy waxee saa su ne daw leen gaaw ngi ngeen abonné ci page bi ngir ñu mën leen a toppal trophée bi bu baax a baax indi leen ci ay leeral fii ci biir Univers Info TV donc rek c'est coacher sur Univers Info TV. Il y a trop d'informations et on est prêt à vous le donner. Merci beaucoup.